waaw il faut dire ne ni beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et que 23 juin histoire Sénégal kenn dootu ko fàtte kenn mënu ko fàtte parce que doon na bës boo xamante ne nii euh, peuple sénégalais bi moo ko moom moo si jóg taxaw buntu assemblée ne lii Abdoulaye Wade bëgg def du fi am donc euh, def ko ci discipline def ko ci ci ci gisu rek xam droit am ak bëgg ak kaas ak xam ak yelleefam ba loi boobu noonu jàllul mais bi nguuru Macky Sall ñëwee ba léegi daf ko soofantal daf ko soofantal taf daf parce que te dafa fàtte ne bés boobee tax daanaka bés boobu mooy déclic lu tax moom tey mu doon président Sénégal ndax bu loi boobu jàlloon na tey moom xalaatul doon président mais daf ko soofantal dans la mesure où li taxoon 23 juin am yëpp mu ngi koy def wax a waxeet wax na waxeet askan bi jàngul liggéeyul euh, fajuwul yooyu yëpp ci la nekk dund gi cher na. Sénégal doxul dara avancé wul ci loolu la nekkaat ba tey beneen ba noonu lu toll ne date 23 juin ci la libéré Karim Wade mu génn kaso jël avion dem Qatar ba tey sénégalais yi xamuñ lu mu hundu ba tey sénégalais yi xamuñ dossier boobu nu mu demee donc date 23 juin jàpp naa ne nguuru Macky Sall fexe nañ lu ne pour jéem ko éliminer ci histoire Sénégal parce que loolu laa jis ci seen ay démarche jëmmaluñ ko dëgg dëggaluñ ko. fulaaluñ ko fonkuñ ko defuñ ci li war dat boobu bokk na ci li leen fal tey loolu dañ ko ñaawlu. waaw xam nga 23 juin moom ñun ñu bëgg ko ñu bañ ko ko kenn mënu koo teree perdurer parce que c'est une date historique ci Sénégal la nekk at mu jot dañ daan organiser ay conférences ay euh, atelier ay waxtaan ay def ay affaires yu bëree bëri ni ki daan ni tey nii sax am ñenn ñenn membre mouvement bi ñu ngi ci ay université ay école ak ay centre def ay formation euh, ay ay ay conférences donc daan nañ ko jëmmal ñun à notre façon mais dafa nekk une nationale boo xamante ne askanu Sénégal yëpp ci war a sant seen bopp parce que askanu Sénégal ñoo ko xeex du ay yëfu Y'en a marre wala yëfu Modou yëfu paate yëfu ñëpp la ni ngeen def nii yeneen journalistes yi def ko tamit daf ci bokk ci li koy jëmmal ci li koy dëggal nit ñi bañ koo fàtte parce que pour man di rappeler politiciens yi 23 juin day tax ñuy da leen di artuwaale ci pet day tax ñuy bàyyi bàyyiwaale xel xam ne que ñoom teguñu fi seen bopp peuple bi la teg te peuple bi bu la neexee mun nañ dindi li fi ne teg ci leneen c'est important. amatul amatul mais il faut savoir que c'est comme c'était un mouvement spontané le M23 c'était un mouvement spontané moo taxoon ñooñu ñoon ñëpp bokkoon ci politique yi bokk ci yeneen bokk ci mais politique yi ñoom ils ont un agenda campagne jotee dañuy dem campagne yi ut ay poste dem toog ñooñu c'est normal ñu après ñeneen ñi bokkoon ci mouvement du M23 ñi bàyyi dem defi leneen aussi seen choix la tu ku nekk sa mais ba tey le m mi ngi exister ñu ngi am na ñu ko porté am na ñu nekk si ay leader am na ñuy dox seen affaire ñu ngi ci waaw loolu moom c'est le jugement que le yéen a koy def man mënu ma toog di juger un autre mouvement ndax am na doole amul doole li ma xam ba xam ko mooy ne euh, compagnonnoon nañu ànd nañu ndoo xeexandoo Abdoulaye Wade mu dem bi mu Abdoulaye Wade demee ñenn ñi ay politique la woon te bokk ci biir dem jëli ay poste ñenn ñi nekkoon ci mouvement de la société civile dem jëli ay poste am na ñu fa des di dëggal seen bopp am na ñu fa des di def li ñuy def liggéey bu rafet comme ni ko yàlla maat defee wala ñeneen di ko defee mënu wax ne amuñ doole wala ñàkk nañ doole dooleeg njawam doole. six ans presque bu sëbëñ ko dañu ah wax boobu moom sa wax boobu moom ce n'est plus d'actualité rarement gisatuñ ko moom ce n'est vraiment plus d'actualité parce que franchement bi Abla bi Macky Sall ci réew mi ba léegi la seule manifestation qui aura réussi c'est le la manifestation de Y'en a marre le 7 avril donc nañ bàyyi di wax ay gisatuñ ko franchement ça c'est un discours de quelqu'un ku gëj a def ak ñun interview wala ku nam ma interview depuis quarante cinq ans quoi et puis mais non on peut pas être là tout le temps a dire Macky Macky Macky il faut que aussi ñu impacter ci imp ci bopp jeunesse bii di ñëw déwén parce que pour ñun le nouveau type de sénégalais du ay président yi ñoom ñoo tax ñu nekk ko askan bi di ñëw la dans 15 ans qu'est-ce que le Sénégal sera ñun loolu moom moo ñu ñoral instant bi nii on veut vraiment liggéey ci ci xale yu ndaw yi ci étudiants yi élèves yi. ñu conscient nañ ñoom ñooy yore futur réew mi ëllëg pour que ñoom seen biir ñu tàmbali xam ne que il faut que ñu def une prise de conscience collective changer le Sénégal parce que ñoom ñoo yore ëllëg réew mi mais topp toujours Macky waaye ba jàpp ba yi ils resteront toujours politiciens mais j' espère que d' ici 2035 si li Y'en di mbëbët fii ak 2035 Sénégal dina nekk le nouveau type de sénégalais buy bi dina ñor nit ñi dinañ ko mën a màcc parce que guy lañ nekk di jëmbat yombul c' est pas facile parce que ci ci ay jikko nga nekk di ko jéem a change ñun sax nekk nekkaguñ ay NTS ndax ñun ba tey ñu ngi ñu ngi am yenn yuy des ci ñun xam nga le fait le fait de bañ a bañ a nangu corruption bañ a salt sànni ci mbedd bañ a saw ci mbedd yu ci bëri mu ngi ñëw nànk-nànk mais nañu nañu ànd ak patience bu ñu yàkkamti booy booy tabax ëllëg da ngay jël temps parce que ëllëg ngay tabax tabaxoo kër tabaxoo dara ëllëg ngay tabax c'est important. boo tax Y'en a am liste Y'en a du am liste Y'en a du dem ak. 23 juin dañu ko xeexoon nekk ñoon ca biir ci biti lañ nekkoon. waaw moom laa la ma ne la 23 juin bu doon ñette biir rek tey ji jii tey jii Karim Wade mooy doon président Sénégal loolu Abdoulaye Wade moo koy continuer doon. bu doon bu doon na ci biir lañ koy fajee rek rek rek mooy loolu dafa am assemblée légitime ak assemblée légal peuple bi kenn gënu koo doon assemblée quand le peuple décide kenn mënu ci dara et Y sa position n'est pas d'aller conquérir un pouvoir. mun na nag ay membre Y'en a dem bokk ci ay liste c'est possible loolu mun nañ ko mun nañ ko cautionner mais membre Y'en a en tant que entité munul bokk à aucune élection parce que loolu du devoir am loolu du rôle am mooy jouer rôle sentinelle rôle mooy nekk fi taxaw bu askan bi soxlaa mu jógal ko su amee loo xamante ne askan bi mu ngi koy jeng it mu wax ko ko comme ni ñuy waxee askan bi temps yëpp ci tournée yi ñuy def ci dëkk yi dee leen fay taxi pour seen municipalité yi liggéeyal leen su ngeen fayul impôt municipalité bi du mën a liggéey comme ni ñu waxee maire yi rendre leen compte seen waa askan rendre leen compte seen peuple comme ni ñu waxee président fajal askan bi joxal askan bi mu liggéey joxal askan bi mu jàng joxal askan bi mu dund loolu moom mooy suñu rol suñu rôle du leneen lu dul nekk ci li ngay wooyee li ñuy wooyee arbitre ci biti donc moo tax mënuñu nekk ci ay liste waaw mooy li nga ko waxee rek dara jógu fi dara jógu fi pour man euh, le bilan il est hyper lourd ci ci négativité am na yu am yu ndaw ndawaan nuñ ko nuyee am na yu am yu ndaw ndawaan mais li ëppal solo askanu Sénégal amaguñ ko amaguñu autosuffisance alimentaire nit ñi jànguñ comme il se doit nit ñi fajewuñ comme il se doit denrées yi ñu ngi cher ba tey euh, sénégalais yi ñu ngi ci ay problème Sénégal dañ ko jaayaat nasaraan si Sénégal instant bi tubaab yee ko moomaat ndax gis ngeen fi ay compagnie tubaab yoo xam ne xëy na bëgguma tudd seen tur bu mu fii bu ma la permettre ma tudd seen ay tur ay Auchan ay Citydia ay ñooñu ñoo ngi gis ñoom ñëpp jaruñ dërëm France ñu indi leen réhabilité leen indi leen fii ñu jaay ay produits de stock de guerre yu yàgg di ko màgget di ko jaay moins cher di daaneel le marché public sénégalais di daaneel économie réew mi nga gis ne station service yi nasaraan yaa ngi ñëw eh, pétrole ñu ngi koy wax ci Sénégal ba léegi nii l'État ne permet pas aux jeunes sénégalais aux sénégalais hommes d'affaires qui veulent investir dans ce domaine-là ñu constitué wu uti ay mooniñ ñëw def exploitation bi comme ni ko ay tubaab mën a defee ñoom mun nañ ko def fii am na ay borom xaalis yu ko mën encouragé wuñu l'économie du pays avec les APE ñi ngi rey askanu Sénégal Sénégal jaayaat nañ ko tubaab yi boo xoolee le 4 avril ci la ci la wax ne léegi kenn dootul jël visa pour ñëw Sénégal te 4 avril doon symboliser feetu indépendance entre guillemets donc ça veut dire que réciprocité bi amut il paraît que aéroport bi jaay nañ ko waa Maroc aéroport bii Léopold Sédar Senghor parce que ñi ngay defaraat ay ñi ngay defaraat intérieur bi defaraat ci biir defaraat ci biti bu paree te nee nañ dañuy dem jas donc aéroport bi yaa anguille sous roche nga gis ne def nañ fa ay barrières baare ko tëj ko sax lañ def daanaka qu'est-ce qui se passe ci bopp président suñu littoral bi yëpp exploité nañ ko zircon bi ñu ngi koy jël euh, Sabodala ñu ngi koy exploité hmm? ñu ngi bëgg a def ay usine de dessalement di foye askanu Sénégal pour pour pour gën a mën a jëriñ ci alal euh, centrale à charbon yeeg yooyu noonu c'est-à-dire train bi TER bi euh, train train train train express bi bi mu war a def mu jël benn compagnie française boo xam ne daanu na ba noppi joxaat ko xaalis alors que Sénégal ñëpp xam nañ ni waa régie de chemin de fer bi nekkoon fii Thiès suñ papa yooyu ba tey ñu ngi kaas seen ay droit di réclamer seen seen dû di kaas seen alal yi ñu leen yoreel salaire leen yoreel ñëpp xam ne ko ci Afrique AOF bi yëpp Afrique bi nga xamante ne moo fi nekkoon avant les indépendances ñoom ñoo fi gënoon a xarañ ci mbirum raay ñoom ñoo fi gënoon xarañ ci mbirum saxaar ci mbirum chemin de fer doo jël ñooñu suñ papa yooyu noonu ak seen i doom yi ñi ci liggéey boobalee te yoral leen nga indiwaat leen ci biir wan leen joxaat leen moyens yi ñoom ñu liggéeyaat dundalaat seen seen seen seen ak seen i njaboot ak seen i nangam ak sangam nga jël jox ay compagnie tubaab yoo xam ne daanu nañ depuis daawaati jéeg nga leen di suqaliwaat ci koom-koomu alalu Sénégal dama dama dama jàpp ne Sénégal dañ ko jaayaat France Sénégal ñun amatuñu indépendance. sama moo de la fin mooy jàmm ak ci Sénégal ci weeru koor gi yàlla nañu yàlla suturaal mel ñu ndam may ñu xéwal musal ñu ci lépp lu ñaaw ak lu bon dimbale ñu tàggali ñeeg xeetu politiciens yi ñu am ci réew mi ba keroog Sénégal mën a demal boppam askan bi nag gëm leen seen bopp retiré leen seen ay carte dem leen ngeen voté massivement mais ngir yàlla voté leen lépp luy liste indépendante ñu wàññi politique yi ci biir assemblée ba kenn dootuñu foye di ñu kaw ci kawtee incha allahu rabbi Sénégal dana am ndam bu ñëpp jàppee dem leen retiré seen i carte wasalaam